ça va bien. na sëñ bi mu ngi tane. sëñ bi waaw moom fee lañ ko yóbbu ba na hôpital waaw mu ngi tane waaw. mu ngi tane bu baax. yaakaar naa les images parlent d'elles-mêmes docteur. oui mooy lecture bi ñu ci am rek mooy comme ni nga ko waxee weddi gis bokku ci te feebar yu bàyyiwul kenn. <laughs> mag ñi xale yi. excès xëy na nag am ñu ñu ci am sens tuuti. Mhm. xëy na mu mel ni xale yi chance biñ ci am peut-être mag ñi amuñu ko. Mhm. donc loolu kese mais feebar mooy virus bi nga xam ne ñëpp lay laal. pratiquement. ay ku ne woon du laal gone. ku ne woon laal gone boo xoolee image yi nga xamante ni Pape Samba jëlee na ko ci centre de traitement bu Diamniadio di nga xam ne euh, mbir mi du ay caaxaan. Mhm. yenn saa yi sax nga dox am nit ku ne ah diw dafa amoon corona est-ce que sax fayuñu ko pour mu wax ne dafa am corona. information yëpp day jàll wala nga mm. dugg ci koñ yi fu ci mel ni Parcelles Assainies nga gis kenn takk masque mu nekk li nga xamante ni du doy waar la takku masque kooku danañ ko waxtaanee euh, ci mm. kanam ak euh, ndoy baan mais aussi euh, dañuy bàyyi place artistes yi nga mm-hmm. xamante ni dañoo engagé ñoom tamit ñu nekk ñoo xamante ni dañoo daal di am ay jafe-jafe ci période du corona bi mm-hmm. mun nañu wax sax ne dañoo daal di ñàkk seen liggéey ndaxte tëgguñu euh, amuñu benn activité bu leen di euh, kon daal di jox ñoom tamit xaalis mu nekk jafe-jafe waaye loolu terewul ñoom euh, xeex nañu ci wetu état bi ci wetu population bi li nga xamante moom mooy feebaru coronavirus kon keps tax ba bokk na ci artistes yooyu. dëgg la jay na ba ni nga ko waxee noonu la artistes yi nekk na période boo xamante ne bu xaw a métti la ci ñoom ndax nag comme ni ñu ko waxee ñoom dañ daan dem di tëgg di def ay soirée te soirée yi amatul spectacle yi nga xam ne moom lañ doon def donc mu nekk période boo xam ne ni mu difficile ci ñeneen ñoom la difficile ci ñoom mais terewul ñu nekk ay citoyens ñoom itam xam li nga ne moom la ñu am euh, ko mooy seen voix comme ni ma ko waxee sànq euh, Tarba nag bokk ci xale yoo xamante ne euh, yaakaar naa ne am na talent boo xam ne kenn dootu ko waxati ndax nit mën ngaa donn dara ba noppi waaye nga fekk na doo am aptitude yi waaye moom dafa donn baayam ba noppi nekk koo xam ne talent rek la am ba tax na Tarba nag dañ lay bàyyi rek nga am loo xam ne compil boo xam ne def nga ko àndandoog say nawle Euh, artiste lépp rek jëm ci xeex corona bi euh, bu ko defee nag nga mën cee euh, wax. daal xam ne danga koo génne ci ak acapella bi. te mu ñemal ñu acapella bi d'abord ba pare. feebaru corona bi bi mu yegsee ba léegi xol yeeg xalaat yi jaxasoo nañu. ndax lu fi bàyyiwul président ak i surgaam. su fi fekkee ndongo daara bi gisuma ko mbaaw moo tax man su ma leen gisee man damay fàtte sama bopp ndax yërëm leen lala li ni léeg-léeg yàlla moo ñu ko teg li ñu ci mën na muccal mooy di takk masque yi tey raxas loxo yi maytu dajaloo bi ndax mi ngi tey aatu naa ak ay loxoom mi ngi téye àdduna bi yëpp ak ay loxoom waaw ah. nekk loo xamante ni mhm. macha allah euh, dafa téye àdduna bi yëpp ak ay loxoom comme ni ko woykat bi waxee euh, macha allah euh, ñu def ci benn compilation boo xamante ni man la ak mhm. sumay moroom mhm. yaakaar naa ni moo waral suñu teewaay fii mhm. su ñu ñëwee mel na ni ñëwal naa ñëpp mhm. euh, ndax ku ci ñëw ñëwal nga sa morom mhm. euh, ñu ñëw tamit pour def ci suñu participation ndax ñun ay porteurs de voix lañ ay xale lañ euh, mais bu ñu waxee dañuy déglu moo tax ba mu egsee Sénégal ñu def benn morceau boo xamante ni man ak pas mal d' artistes la ma ànd ceeg Ami Collé Momo Dieng Kane Diallo El Hadj Keita Euh, ak ñeneen ak ñeneen xam naa dinañu ko présenté léegi moom moo nekk nii mhm. compilation buñ ci def dinañ ko seetaan ci kanam ah, dinañ ko seetaan ci kanam mu nekk loo xamante ni lu am solo la mhm. Mhm. waaw képp su bàyyi ma euh, tar ba lu jëm yéen ci seen contenu yi maanaam euh, message sensibilisation bi temps yi gis nañu ne artistes yi ñu bëree ngi ci ba xam yéen message yi da ngeen di dégg ni ak seen inspiration wala que docteur moo leen koy jox digle ki tegtal parce que am na temps yoo xamante ne gisoon nañu peut-être am na benn vidéo boobu sax jotul jàll ma ne bii bu jàlloon musiba am mooy mhm. automédication lañ doon wax wàllum chloroquine mhm. ba coow la jógee ñu naa wuti leen chloroquine ak xaw ma am na mhm. benn mbalax bu eh. génnoon bu sax boobu sax heureusement ba génnul léegi léegi yéen seen message yi da ngeen ni euh, boo leen di wax da ngeen di laajte digalu ko docteur ñu dolli leen xel am am déet waaw yaakaar naa ni message yi ñuy jàllale ci euh, coronavirus bi moom euh, jarul ñuy laaj docteur ndax docteur mhm. ndax docteur yi chaque jour ñu ngi ci télé bi mhm. euh, di di passer message mhm. euh, di wax li ñu ci war a muccal euh, loolu moom booy na ci nopp Sénégalais yëpp ci loolu rek lañ jël inspiré inspiré wu ci Euh, def ci ay morceaux. Mhm. parce que euh, message yi moom mi ngi partout. Mhm. boo seetaanee télé yi di ko gis docteur yi di wax. boo nekk ci sa internet aussi di nga ko gis. Mhm. ci lañ inspiré woo rek. def ci morceaux. waaw ci euh, compil boobu muy wax sax tar ba moom lañuy dem xool ci benn extrait ñëwaat ci plateau bi. ngalla waay nañu tuubal yàlla borom Coran bi te di ko ñaan. mu musal ñu ci coxalaane di ko dagaanit bépp góor yàlla mu musal liggéey yàlla ba mu nangu ko feebaru corona bi bi mu ñëwee ba léegi xol yee xalaat yi got the hope. bàyyiwul président ati su si su fekkee nango daara bi gisuma ko moo tax su ma leen gisee damay fàtte sama bopp ndax leen lala leen lii de moo jooy lool feebar boo xam ni ba kii gis nga garabam lii de moom tiis lool na yaay Sénégal leen ma déglu leen ma man bëgguma ngeen gaañoo sama askan déglu leen alaay xam naa adunaay bëgg jeex wala balaa bee ñu bëgg nataal xel dalatul ni gaañu toog leen seen kër ndax buñ ko seetaanee na fi ni crise mondiale tëj nañu réew cas le clip est magnifique xaw ma naka ngeen def euh, ba dugg studio naka ngeen def euh, keps peut-être euh, mhm. ba daal di def clip bi mais en tout cas c'est un clip magnifique Ami Collé moom la voix d'or la voix d'or mhm. mhm. macha allah clip bi morceau bi parce que morceau bi dafa am benn réalisateur boo xamante ne ñun ñëpp suñu clip bi moom moo ñu koy tourneel ñu ngi koy wax Pat DJ moom moo am idée bi wooñu ñu dem studio mu nekk lépp lépp luñ ci def rek c'est gratuit. Mhm. studio bi ñu dara ndax. Mhm. ñoom tamit dañ ci doon jàpp mhm. ñëpp engagé wu ak ñëpp dajaloo studio. Euh, ñu def morceau bi pak tourné vidéo bi grat gratuitement ñu génne ko euh, tas ko ci àdduna bi yëpp. mais feebar bi dafa am buzz est-ce que da ngeen a lang ci feebar pour am buzz. non même pas. loolu ndax ñun kii mooy tarba tarba borom am na bës ba pare. ñun feebar bi feebar bi dafa international. ay kii mooy xaritu ketchup. kii mooy tarba ketchup ah, la damay laaj la rek bu may laaj xam <laughs> nga. gis la bari dañuy langaamu ci am na bës ba pare. Hmm. kii yoo feesal grand théâtre bërki démb. ak génération yi ay ñoom kan jàll yooyu. da ngay gis benn morceau bu ñu génnee. lu mu balaa def deux jours mu wër àdduna bi yëpp. Ah. ñu koy tiktok di ko di ko snapchat. di ko dugal ci statut ñi ay xale artiste 2.0 parce que bu ñu waxee dañuy déglu ah, kon kon uh-huh. euh, jaadu na bu bu feebar bu mel nii. amee ci àdduna bi. Mhm. ñu def ci suñu communication parce que am nañu ay fan fans te génération bi tamit ñun la ñu maaseel. loolu moo tax ñu def moo sëb rek mais du buzz yow corona corona moom daa am buzz boppam. ndax corona daa toj àdduna bi yëpp. bëgg mu dem ba ñu delloo bu mu ca mbay mbay. ñu bàyyi la ñu way presque ay 7 mois ngi nii dañuy nelaw di yeew di dem ci studio yi. loolu ñu defe dépense bi nu muy demee. métti na ay waay xanaa xanaa xanaa géer ñi ak ñi ñuy jàppale macha allah ndax am nañ ay soppe yoo xamante ni Uh-huh. boobu ba léegi tamit bàyyiwuñ ñu uh-huh. dañuy woo dañu teral ku ci mel ni suma président Papa Ali Guèye <laughs> chéri bàjjël soxna <laughs> ak madame la ministre de la <laughs> femme Ndeye Saly Diop Dieng nga xam ne tamit coronavirus ba mu ñëwee ba léegi daf ciy def communication bu bu am solo uh-huh. Grand Dakar Euh, ak mouvement yi nekk Grand Dakar yi. def nañ ci ay communication yu am solo macha allah. jërëjëf Tarba ñu bàyyi la nga euh, wax sa dernier moo rek Tarba mooy borom Grand ndakaar borom ñaari tari waaye tar ba Sénégal yëpp ñu bàyyi la nga wax sa dernier moo xale yi nga xam ne dañ lay déglu muy mag di ndaw fépp ci àdduna bi fii ak sénégalais bitim réew yi lan nga leen di wax rek nga tàggatoo ko pour lu nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, feebar bi ak fi nga toll. waa xanaa di gën a sensibiliser rek euh, pour feebar bi génn ci àdduna bi yëpp mm-hmm. set ci wicc mm-hmm. ndax euh, boobu ba léegi yàgg na mm-hmm. euh, tënk na ñu bari surtout ñun parce que yaakaar naa ni ñun mesures yu ñuy wax ni nañ ko jël ñun mënuñu koo liggéeyee parce que bu ñu wootee li ñuy drainer ci ful dafay bari ah kon ñun la gën a sonal dañuy gën a wax sénégalais ñu gën a sensibiliser wu respecter mesures yi ñu leen ci jox su ko defee yàlla musul ñu ci dimbali ñu ci mu jeex ñëpp nekkaat ci seen liggéey mhm. di kontaan bu baax a baax ci plateau bi di la nuyu yow su ma su yaay nga suma jigéen nga suma lépp nga macha allah euh, di nuyu aussi waa Grand Dakar bi ma jógee mhm. ñaari tali biscuiterie yi ak fépp soppe Tarba Mbaye nekk ci àdduna bi waa diaspora bi maa ngi leen di nuyu di leen bëggee bu baax a baax a baax jërëjëf beneen artiste mi ngi préparer ci ginnaaw euh, muy euh, Demba Guissé mu wax lu am solo euh, muy wàllum masque bi masque yi moom daanaka léegi moom nit yi ñu ngi koy sol waaye mm-hmm. nañu koy sole ak fu ñu koy sole loolu mooy mm-hmm. poser problème aw may masque yi docteur euh, kon euh, ay bés bële ba ñu génnee dogal ne nañu ko takk ci yenn bërëb yi euh, maanaam takk ko par force nit ñaa ngi koy takk comme Dieynaba ni mu ko waxee mm-hmm. yenn saa yi sax si sa point du jour bi yenn saa yi nga ne nañu bàyyi xel ci nawet bi yenn saa yi ngeen takk masque mu tooy ngeen war ko soppi ak itam façon bi ñu koy fóotee mais nit ñaa ngi takk masque docteur mais ñaax bi jëm ci ñu bëri gis ne ñaax bi jëm ci façon bi ñu koy takkee euh, dafa des. waaw dëgg nit ñaa ngi masque yi ñu ngi koy jëfandikoo mais encore une fois masque li ko tax a jóg masque sax soo seetee xaw ma nu tudd ci ci olof wala même ci pulaar xaw ma. Ah. mais masque moom dafa war a masque maanaam dafa war a. cache ne maanaam dafa war a nëbb. Mhm. yenn cër yi. Mhm. surtout bakkan ak gémmiñ. parce que nit ki nga xam ne xam nga coronavirus. ñu ngi koy wane ni ñu koy takkee ni ah, en même temps waaw voilà mu ngi koy wane euh, ci yaram lay nekk mais surtout ci xëtër ci poumon yi. Mhm. kon nit ki dañ koy nooy nga koy génne ci li ngay soo nooyee ba pare li ngay génn génne. Mhm. wala booy wax tamit lii nga xam ne lii génn ci sa ci sa gémmi. koy wax déjà postillon. waaw postillon xaw ma nu mu mun na ci jaar kon nag moo tax nit ki war a jël masque bi mm-hmm. masque bi muur kii bi mais nit ñi dañu jël masque bi def ko fii. Mm-hmm. wala suñu ñu bàyyi gémmiñ euh, bakkan bi dégg nga mm-hmm. def fii. wala suñuy wax ñu dindi ko. donc norme donc. yaa wala ñu indi ko fii kon nag masque. te avis euh, ça veut que lii ko taxoon a jóg kiiwuñu ko mhm. te d'ailleurs soo seetee communiqué bi parfois du bës bu nekk mais nag dañoo buggoon loolu di raar dañuy wax ne que ñett ñàkk seen bakkan bakkan wala benn bakkan kay mooy xanaa mhm. man du ma olof waaye bakkan mooy lii kon masque suñ ne nga nëbb sa bakkan ça veut que nga aar sa bakkan aar sa bakkan mhm. donc nit ki da ngay aar gis nga foofu tur yi sax dañoo daje mhm. donc bakkan nit ñi nañu xam ne que masque bi lu am solo la mhm. te soo seetee ñaari nit rek nee nañu ñaari nit ñu nekk ni ñu jegeyantoo bu dee kenn solu ci masque mun nañu wax ne que wàllante bi de mun na dem ba cent cent presque wala quatre-vingt-dix-huit pour cent mais su dee am na ku ci sol masque rek ki nga xam ne dafa feebar kii sole masque rek 70 pour cent lay su dee kenn. su dee ñoom ñaar ñëpp sol nañu masque day dem ba 1,5 mm-hmm. pour cent. Mm-hmm. ci yenn masque yi bien sûr ça suppose que masque bi masque de qualité tamit. mais surtout mm-hmm. nit ki na sol masque. sol masque mooy d'abord da nga solidarité ak nit ñi. Mm. que feebar bi am na. te da ngay respecter nit ki yow nit ki mu ngi wax ak yow mu ngi sol masque yow nga ngay wax ak moom solo masque. te nit ki aussi toll nañu fi nga xam ne nit ki su solee masque sax di wax yow war nga ko wax euh, sëriñ bi wala soxna si na nga jekk-jekkalaat kii bi sàmm sa masque bi parce que protégé wul protégé wu la moom su jëlee masque pratiquement c'est pour mu protéger keneen kii day protéger boppam mais day protéger keneen kii mhm. donc surtout nañu bàyyi xel ci masque bi masque bi lu am solo la adduna bi yëpp dañoo xam ne que masque bi moom lu am solo la distance bi am na ci solo raxas loxo yi pourquoi raxas loxo parce que loxo bi mooy dugg fu nekk. Hmm. mooy dem ci gémmiñ mooy dem ci bët muy dem ci bakkan ak leneen. Hmm. donc mooy nuyu nit ki moo loxo moo gën a mun a gaaw ci. Hmm. yóbbu yóbbu microbe. donc dafa war a set masque bi tamit dafa war a muur lépp. su mënoo nekk sax bët bi da koy muur mais mënul nekk <laughs> et cetera. mais mais masque solo la. masque nekk na loo xam ne budget la tamit booy xool. waaw budget la ci léegi daa bokk ci dépense bi ci dépense. waaw te bu ñu xoolee tam fi réew mi toll. du ku nekk moom moo am possibilité wu di am masque tout le temps mm. bien que obligation parce que kenn ku nekk danga nga war a takk masque yan matuwaay gis nañ ne distribué ngeen ay masque ministère de la santé bon volonté itam indi nañu ay masque ñëpp jàpp nañ ci mais ba tey dafa des ndax am na sénégalais boo xam ne bu yeewoo la mu war a jëlee jëndee masque moom lay jël euh, ndékkee ko mbaa mu ko loolu li wax dëgg la masque am na njëg surtout li nga xam ne bës bu nekk war nga koo utiliser mais dem nañu ba di wax ne nit ki su amee morceau bi nga xam ne ñaw nañ ko mun na ko fóot di ko paase mhm. loolu tamit dina oyofal mbir mi ah. waaye nag budget la mais nag puisque nag bàkkan amul njëg nañ ci taxaw rek mhm. parce que nit ñi aussi ku jëndul masque aussi xëy na mu ngi jël cent francs wala deux cent wala wala téeméer mu def ko feneen mhm. adduna bi nag dafa metti fuñ toll fuñ toll nii dépense boo gis rek am na fu mu munoon munoon dugg mhm. waaye nag puisque yàlla moo ko indee noon nañ ci góorlu rek te munul ñàkk waaw te munul ñàkk ñu jëfandikoo masque yi am na solo loolu loolu doon tontu ñi nga xamante ni eh, dañuy wax ne masque dafa cher. du ko jënd ah. euh, parce que euh, euh, léegi jamono ji dafa metti mhm. dañoo daal di impacté. Mhm. tax kon duñu ko jënd comme ni ko rek docteur waxee mun nga jël kon sa morceau tissu daal di koy mhm. ñëw mais nag nga di ko fóot di ko paase waaye da nga gis masque yu nga xamante ni dañuy tilima tilima. moo lay jox feebar sax voilà moo lay jox feebar parce que da nga ci bàyyi tuflit di ko noyyi te boo paree nga tegaat ko ñëw jëlaat ko pour di ko utiliser waat donc. gàllankoor yooyu la wax ñu koy éviter. xanaa di ci dolli tamit. Mhm. c'est vrai que yërmande am na ci soo mhm. seetee ñiy jaay ci mbedd mi sax. Mhm. masque yi dañ koy dañ koy euh, déconditionné pour jaay nit ki lu mu soxla. idée boobu baax na. waaye nag ñoom tamit. ñu ngi nii di ko jaay détail loxo bi par exemple. di dugg fu nekk di la jox masque loolu tamit nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel ñoom tamit ñu gën a góorgóorlu que ñoom ñooy jaay nit ñi masque yi et cetera xëy na déconditionné bi dig jaay nit ki par benn ñaar baax na parce que doole yemut waaye nag nañu xam ne que aussi loxo yi aussi mm-hmm. de transmettre feebar te nit ki aussi balaa ngay jënd masque aussi seetal loolu aussi war nañ ci bàyyi xel tout à fait euh, dinañu yegg si waat ci loolu soxna Awa euh, parce que xam nga ki nga xamante ne moom mooy ndoy Bane euh, dafa amoon liggéey bu am solo wax naa ko en début d'émission bu mu amaloon ci gox goxaat yi nekk fii ci suñu réew dem xool situation bi na mu fa rek di demee danañ ko waxtaanee ci kanam mais dafa am aussi reportage bu am solo bu Ndoye Baye Ndoye Bane indi dañ koy lancer ba pare bàyyi ko moom mu ñëw commenter ko mooy ñi nga xamante ne dañuy sol masque non pas parce que dañoo rek ragal feebar bi waaye dañoo ragal police ak gendarmerie. pour bañ ñu jàpp ma rek waaw pour bañ ñu jàpp ma rek mais masque bi moom ndax dëgg yàlla mu ko takk pour pour ñu bañ ñoo jàpp rek waaw. da ngay takk masque pour bañ ko la jàpp. waaw pour policier waaw pour 3000 ak 6000 feebar bi moom ndax dëgg yàlla xanaa yàlla musal si nit ñi rek mais. moom daal masque bi daal policier moo tax ñu ko takk moom. c'est que xam nga ci maanaam yow feebar bi tey am na lu leen di bëccëg fii ci Sénégal tey bu nee la jàpp loxo rek boo koy jox loxo sax doo ko tey luñ tàmm la. maa gis rek takk masque. non dama gis parce que dama xam ne danga may interroger moo tax. te aussi tamit euh, c'est pas joli du tout moo tax ma takk sama masque. Ah, du ma dem nga teg. non non moom wax dëgg yàlla moom mënuma dëkk ak masque parce dama amee sinusite yaa ma gën a xam. gëm ko wala gëmoo ko. gëmuma takkoo masque moytuwoo dara. man daal xam nga lu ma gëm ah damaa gëm ne grippe la rek comme grippe comme siburu rek man loolu laa gëm man sama borom kër tam day takk masque parce que amul pexe. gëm na ko. moom tam gëm ko. monsieur ak madame gëmuñu ko. gëmuñu ko waaw. les enfants gëmuñu ko. Mm, waaw les enfants tam gëmuñu ko waaw. Ah, mais sori ma demal. ma ngi tas nas pour aar sa bopp wala pour bañ ko policiers yi <laughs> man li ma koy doyoo pour que jàpp da ngay bañ ñu jàpp. waaw moo tax ngay takk masque. barke Serigne Fall. ngay gëmoo feebar. Ah, gëm naa ko gëm naa ko fii da ngay takk masque pour bañ policiers yi waaw damay takk masque pour bañ policiers yi jàpp ma. waaw ndax tamit bu fekkoon ñoom jàppewuñ ci moom duñ ko takkati. ndax gëmoo feebar. non du question gëm ak ñàkk gëm sax mais buñ takkee masque moom bañ policiers yi jàpp ñu ndax liñ ñuy fayloo moo ñu ñu koy takk am takkal nii takkal takal takkal def ko nii déedéet déedéet waa dafa takal takal waaw dama ñu ini beneen takkal doucement ndànk xëccal mu wàcc na wàcc voilà yéegal na yéeg na yéeg voilà bës ko nii bësal nii bës ko nii nii bay bay bay bay bayil ha mi nani i haale he radio he télé kono noon mi meeɗa yiide gonduɗo e muɗum yettaki gawga saare amin ga ligguey xawma ko wawi an sa masque yow am mo ko ɓoggol ngol taaƴi mina namno ɗum to tayor pour watte ba taagaraw. mais yéen ñëpp kenn takkul masque kenn takkul masque kenn kenn yéen ñëpp hmm. yéen ñëpp am ngeen masque ma nga ca kër ga. waxal olof waxal waaw waxal olof. <laughs> waaye gars yi moom police yi leen di daw waaye daw ñu kii bi daal maanaam. c'est désolant maa ngi gis euh, euh, docteur di yëngal bopp bi <laughs> doy maa ngi gis docteur di yëngal bopp bi mm-hmm. mais bu nekkee yegsi nañu fii quand même ça veut dire que ne que voilà euh, il y a encore du travail à faire en fait encore du travail à faire dëgg la liggéey bi dafa war a continuer mm-hmm. noonu la adduna noonu la mm-hmm. nañu continuer xëy na liggéey bi des na ñun ñoo war a peut-être yokk suñu jéego mais ça fait quand même six mois presque moitié at moitié at ñu ngi wax waaye nag du ñu bàyyi nañu continuer rek mhm. nañu continuer xëy na loolu la euh, il faut ñu continuer mais image boo ko gisee est-ce que par exemple doo xalaat ne yéen yéen ngi def yéen a ngi liggéey mais mhm. genre genre genre wax yu mel nii genre genre comportement yu mel nii du leen pas décourager quoi mais mu jox leen pincement au cœur oui day jox pincement au cœur parce que da wax ne que xëy na euh, parce que yow da ngay remettre en cause li nga wax da ngay wax ne que xëy na man li ma doon wax message bi xëy na utiliser ma canal bu baax wala man ni ma ko doon waxee. dafa moo moo jubul. Mhm. il faut ñu xoolal alors que euh, ñoom ci seen bopp comme ni ma ni ma waxee woon sànq war nañ def enquête pourquoi parce que nee nañu am nañu masque mais mu mu nga kër ga. wala mu ngi sama poche donc euh, waxoon naa ko ci benn émission ma ne nit ki ko laaj mu ne la coronavirus te d'habitude rarement bon di nga gis ku wax ne que amul mais day wax ne coronavirus am na. wala mu ne soo ko waxee ne noo war a def pour éviter ko mu ne la war naa jël masque war naa def distance mais du ko nangu jëfandiku mais mm. pourquoi nit ñi bugguñu kii boobu par exemple femme bii di jàll mu ne grippe kese la mm. <laughs> mais xam nga ne su xamoon grippe li muy rëy moo moo ëppali corona di rey mm-hmm. Mm-hmm. donc ñàkk xam la mm-hmm. donc il faut ñu continuer di wax ak nit di sensibilisation nit moo demee noonu il faut pas ñu décourager dégg nga même su dee parce que aussi am na ñoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy jëfandikoo. Mhm. kon nag bu ñu xool rek xëy na ñi xamuñu ñu ne ñu découragé ba ñu ko nañu continuer rek xëy na ñoom tamit nañu utiliser nag ci communication ñi nekk ñi bokk ci ñoom. Mhm. ba ñooñu convaincre mhm. ba ñooñu indi indi leen ci tant que message bi mu ngi xëy na feneen xëy duñ ko gëm. mais nañu fexe ba ay ay relais communautaire ci ñoom. engagement communautaire ci ah ñoom seet ay leader ci ñoom mooy mm-hmm. maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñu xam comme leadership mm-hmm. ñooñu ñu jëf parce que soo leen gisee aussi am nañu lu mel ni peut-être sëriñ am nañu ay artistes et cetera ñu gëm. Mhm. ñu jaar ci ñooñu. pour que ñoom ñu ñu. mais tamit euh, bàyyi Ndoye Bane après mu mhm. commenter euh, mhm. peut-être élément bi Awa vas-y. non que euh, docteur dama koy wax ne tamit am na ñoo xamante ne tamit ñoom ñu ngi wax ne preuve la ñu bëgg. feebar bi gëmuñu ko mais am na ñoo xamante tamit gëm lañu feebar bi ba egg ci ne ministère dafay maquiller chiffres yi. ñu ne ministère li muy joxe par bis am na lu mu ci nëbbu am na lu mu ciy làq-làqal na wax nit ñi li xew. dëgg-dëgg yéen tamit noonu noo leen koy jàngatee am na ñoo xamante ne euh, maanaam ci xayma bi nee nañ mënoon euh, maanaam gën naa yokk am na loolu ni nëbb ci suuf am na mm-hmm. yéen noo leen koy jàngatee ak et puis tam remontée des yi yéen noo leen koy xam nga nit ñi moom dafa euh, lima waxoon rek loo def ñu am luñ ci teg mm. maquiller chiffre bi pour pour pour ban intéret moo ci nekk mm. nga ne sénégalais yëpp am coronavirus wala nga ne nit ñi di am ngay wàññi. Mm. ban solu ban ban ban intérêt. Mm. intérêt de kii su doon yow sa faute la d'accord wala faute keneen mais li nga xam ne moo ñëw wàcc ci adduna bi da nga war a wax ni soo gisee ñuy def communiqué par jour. Mm-hmm. bés bu nekk ñu taxaw wax nit ñi ba nit ñi di wax ne sax ndoy inspecteur ndoy muy doon wax ne est-ce que mënuñu ko. def peut-être par tel envoyé et cetera boo gisee ñuy def lool c'est que pour mu gën a leer. Mm-hmm. Euh, fonk gën koo gëm daal. Mhm. mais suñu waxee ne que xëy na dañ koy maquiller wala nangam. Mhm. ñàkk xam la nag. ñàkk xam moo tax parce ñuy pousser mbir mi di dem ba ni. Ah, dañ ci am intérêt parce dañ leen financer looloo tax ñuy yokk. loolu ay xaalis lu nekk lañ ci milliards yi nit yi bari looloo tax ñu bëgg milliards feebar bi delluwul ginnaaw ñu bëri ne xaalis bi fan la dugg ministère ah. de la santé ñoom ñaata la am ci xaalis bi ak xaalis bi mën na dugg noo leen koy jëfandikoo. xam nga Sénégal mu affaire xaalis soo ko waxee rek. juboo dootul juboo dootul am. à chaque fois man dama gis Sénégal yi ñoo am problème ak chiffre. man dama gis chiffre bu bu bu am rek ñu discuter ci. Mm-hmm. même soo seetee rek ay bilan et cetera wala suñu waxee taux de croissance mosoo gis ñu génne chiffre taux de croissance. man dama koy suivre xamuma ko trop. Mm-hmm. mais débat bi ciy am toujours. Mm-hmm. pendant plus de un mois dañuy xaalis dañ ciy am. te chiffres yi nga xam ne ñun li ñuy natte kii dañ koy remonté ci ci ci ci ci ci maanaam ci poste de santé mooy structure de santé mhm. ñoo ñuy wax ne que am nañu li am nañu li am nañu mu dem laboratoire mhm. laboratoire bi su defee ba pare en yónni ñu résultat ñun dañuy def rek ko génnee résultat yi ne lii ak lii lii moo am fii lii moo am fii seen liggéey la sax te suñu liggéey la mhm. donc lu nekk lu nekk ñun ñemewuñu génne li nga xam ne wóor ah d'autant plus que da ngay wax ci rajo soo taxawee di lim ci gox gis nga gox yi soo paree maire yi di téléphoné ne ah yow nee nga ma am naa cas communautaire. am na ay maire yu ko weddi. Mm-hmm. Mm-hmm. wala ah ay mét am na ay médecin yu ko weddi dem bu baax wax naa benn chiffre médecin bi moo weddi moo téléphone mm. mu may déglu mu ne nee nga ma am naa cas communautaire mais ñun amuñu benn cas communautaire. ma ne ko mm. ma ne ko wax nga dëgg cas communautaire boobu foofu la jóge mais. mu ñun mu ne ñun defuñu benn analyse ma ne ko malaat bi mu ngi defee analyse am Le Dantec mhm. de doon tukki mu ñëw def ñu jo ñu laaj ko ban adresse mu joxe adresse am mais tamit mu ne maa ngi dëkk kiwu sangam mhm. mais bu génne ñun dañu adresse bi la ñuy jël mhm. adresse man guddi la chiffre yaa ngi nii ci léegi léegi li may communiquer suba mu ngi nii Eh, eh, ñëw na ñëw na ñu ko jox en exclu dama la ko jox ñu ko en exclu nañu ba pare docteur kon nag xëy na loolu da ciy da ciy joué également parce que tamit am na benn moment ñu déggoon fi ñoo xam ne dañu ne dañu décédé du Covid ñoom ñu génn encore weddi ko ne gaañuwuñu ci loolu comme mhm. weddi bi nga wax donc loolu yëpp dafay andi jaxasoo ci bopp nit ñi ba xëy na loolu tax na gëm gi bi nga waroon a gëm gëmuñu ko xam nga euh, xam nga nit ñi dañuy dañuy we euh, dañuy weddi dañuy wax rek mhm. lépp li nga xam ne euh, ku buggul gëm dafa bëggul gëm rek. Mhm. gis nga li nga ñi ñi weddi ay am na wala ñooy weddi chiffre. Mhm. Mhm. te chiffre bi nga xam ne ñun amuñ ci benn intérêt. dañuy wax rek li am lii moo am lii ak lii. trompé wu mënul ñàkk. mooy maanaam juum. nga juum olof sax moo ne ku lim juum. et puis nit ku dul juum amul. dul juum amul. mais c' est très rare ñuy juum. parce que affaire yi dañ koy xool xoolaat te laboratoire balaa muy wax ne parce que aussi. boo demee ba wax nit kii dafa am coronavirus mais dafa am conséquence mhm. dafa am conséquence donc ñoom balaa ñu koy génne dañ koy xool xoolaat ko xoolaat ko xoolaat ko xoolaat ko liiraat ko te procé kii bi su ñëwee gis nga su euh, suñu yónnee ay tube mhm. maanaam ay prélèvement bu se su fekkee ne am na benn tube bi nga xam ne dafa tijjeeku tuuru rek Mm. dootuñ ko xool. Mm. Mm-hmm. parce que dañu wax ne que mu baaxatul. dem ñu woo la kay defaat. parce que da ngay defaat. Uh-huh. donc wóorul wala ñu ne la defaatal parce que. li ma ci gis mënu ma ci prononcé wu. Ah, waaw waaw mooy mooy kii bu dutoy euh, nañu ànd ak euh, je pense que ñiy mm-hmm. weddi chiffre yëpp. Mm-hmm. mun naa wax ne que dañoo dese. yenn yenn ngëm yi rek. Mhm. Mhm. mais pratiquement loolu war nañ ko weesu actuellement. Sénégal passé na. Mhm. fi nga xam ne ay ci yenn détails yi dañuy maquiller ay chiffres wala nangam. encore félicitations Ndoye Bane pour liggéey bi nga xamante ni def nga ko mais surtout élément bi nga xamante ni indi nga ko Ndoye Bane. merci beaucoup gis nga euh, Dieynaba ñun. dañoo góorgóorlu ba. man leen suñ ne nu Sénégal géppit liñ ci wër bari na trop ah, trop mais li ñu gis mhm. man li ma jàngat ci li nga mhm. xam ne moom moo ba corona bi commencé ak léegi dëkk yi li ma jàngat mooy mhm. feebar bu naqaree lijjanti la fii ci dëkk bi su fekk Sénégal parce dama ci doon waxal sama benn xarit mu ne ma état bi dafa échoué ci communication ci wàllum corona bi man ko ban état moo ko réussir tontu ma man ko Amérique réussir ko France réussiru ko Angleterre Chine sax réussiru ko donc suñ doon xool ñi nga xam ni ñoo gën a loru ci feebar bi euh, dëkk yu mag yi lañ wax Sénégal bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a néewle ñu fi faatu même su fekkee ñoo ngi naqarlu mm-hmm. euh, di masawu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo faatule li nga xam ne moom la ñu gis nag ci Sénégal mm-hmm. bañ ko wëree ba gis ko gis nañ ni pauvreté bi ci dans les régions mm-hmm. dafa metti metti na méttiwaay goo xam nit ñi taluñu feebar bi soo leen waxee waxu masque sax dañ lay reetaan li ma bon li ma seetlu tamit mooy politiciens yi bañ nee parrainage politiciens yëpp dañoo wàcc ci seen base waxuma leader yi. mais ñi nga xam ne les maires premier adjoint maire yi yeeg maanaam ñi nga xam ne dañuy dañuy politique ci ci village yi di politique ci ci ci département yi di politique ci communes yi ñooñu nga xam ni bañ ne ko bañ ne dañoo wàcc ci sur le di wuti ay parrainage mm-hmm. ñoom it su fekkoon ñëw nañ ñëw nañ dugg ci xeex bi. jël ay ay affaire parti teg fële. jël affaire a teg fee jël affaire des religions teg fale dugg ci population bi sensibiliser population ci wàllum feebar bi comme nan doon wute seen carte seen baat ya comme nan doon wute ay fiche parenage yaakaar naa lu bari bari dina dina wàññeeku. Mhm. beneen mooy nawetaan yi mhm. ren amu fi. ASC nawetaan yi ci réew yi ban njariñ lañ am amuñu benn njariñ lu dul tey jii final jot nga nga ñu laaj la ay mayo ñaan la ay balak yoo tey jii seen njariñ moment bii la leen askan wi soxla hmm, sensibiliser waaw hmm. sensibiliser président ASC yi instant bi waroon na fekk mu dajale waa kon bi yëpp di leen sensibiliser ci takk ko masque jënd ay masque jox leen am nañu ko commencé quand ah, am nañu ko commencé mais loolu Sénégal gépp dañ ko war a def lu et puis nit ñi dindi seen bopp yi que ni feebar bi feebaru état la wala feebar bi feebaru hmm. religion la ay feebaru feebaru feebaru ay tarixa dañ ko war a xeex sans distinction da nangam ak nangam wala naan politique la dindi yooyu seen bopp yi beneen mooy nit ñu bari dañuy wax naan damay task mas pour bañ policier bi jàpp ma loolu dafa bari ñu baree bari ñu koy Dakar fii ñu bari dañuy takk masque pour bari policiers yi jàppale mm-hmm. soo demee Thiès reportage bi ma def ni maa ngi ko def rond point Ngent nit ñi nee nañ Thiès mel fii Thiès gii la fii rond point la <laughs> li waaw soo bokk na ci région yu gën a yu gën a ëpp kaar wax na wax naa leen ko te soo demee tey jii soo demee biir Dakar nit ñaa ngi takk mas nga dem biir Thiès nit ñi da ngay gis nit ñi takk masque mais soo génnee Thiès dem dans les régions nit ñi la xew yow mii ñooñu duñ la sax seetaan xam nga xam nga loolu tamit problème la senegal du Dakar rek Sénégal du Thiès rek Sénégal du Ndar rek surtout les grandes villes nit ñi dañuy góorgóorlu di xaw a takk tuuti mais soo demee ci benn village bu ndaw wala nga dem ci benn commune mais da ñoom yëguñu li xew fii nii fii ci dëkk bi mais est-ce que parce que communication bi dañ ko xaw a euh, ne une communication citadine euh, euh, je sais la may laajte non non ah, c'est que il faut ah, làkkum tubaab bi il faut ñu wàññi ko cas bi il faut ñu wàññi jël affaire yi ci wolof séeréer joolaat ki ak nit ñi beneen bi mooy politiciens yi nga xam ne ñooy dem dans les communes ak parti bu mënti doon di laaj nit ñi seen baat nañu wàcc ci ci sur le terrain mais te bàyyi suñu yóbboo juróomi masque ñu filmer leen yóbbu yott yóbbu juróomi bi dee le gel ñu filmer leen ci buntu maire fekk fekk du affaire bi du loolu soo ñëwee ci biir commune bi da ngay génn dem ci village yi wax ak nit ñi corona bi Dakar lay jógee di dem ci région yi. nga ne politiciens yi ni ñuy def. non non dañuy jël juróomi masque ak ak juróomi butéelu gel taxaw bëgg ko bëgg ko politiquer affaire bi du loolu. feebar bi mi ngi fii ci dëkk bi mais ñoom ni ñuy communiquer ba nit ñi xàmmee seen couleur parti yi. Hmm. noonu la a communiquer ba nit ñi xam ne ñoom it ah, dañ askan yi dañoo war a takk masque yi dañoo war a raxasu dañoo war a def gel mais su fekkee yow bala ñu laa gis élection dafa jot ah soo taxee fee di leen woo téléphone naan leen def leen léeg li nit ñi duñ la faale. dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci dëkk. engagement citoyen lay voilà nit ñi dañoo nekk ci am fa kàddu. képp koo xam da ngaa nekk ci dëkk am fa baat am fa kàddu nit ñi di nga leen soxla léeg war ngaa dem ci sa dëkk boobu ci base bi sensibiliser population ku nekk ci tarixa. Mhm, c'est important c'est ça. oui en tout cas euh, euh, li nga wax ni dafa am solo parce que si ginnaaw maa ngi gis ñuy wane image wu ki nga xam ne da nga ko wax mu takk masque xamul sax nuñ koy rek daal di takkee te xam naa ne bëri na ci ay euh, ci mhm. feebar bi dafa benn pic euh, docteur il faut le dire euh, ci période euh, ba ñu paree tabaski bi am na ñu bëri ñu ne dañoo jële feebar bi fii Ndakaaru daal di koy yóbbu kon ci gox-goxaat yi surtout à Saint-Louis lu extraordinaire ba ñu ñibbisee ci tabaski bi cas yi dafa bëri foofu surtout cas communautaire yi je pense que c'est aussi important de de le relever pour wax nit yi aussi que ne que moins que ñuy mën a di déplacer au moins mu affaire voilà mieux c'est loolu ci la effectivement déplacement bi déplacement yi ci la bokk feebar bi gis nañu feebar bi Chine la jógee mhm. ma ñëw fii kon dep loolu moom ne nañu ko euh, weddi gis bokku ci ah, lii jógee Chine ñëw ba fii <laughs> nite ko fi indi mhm. naawul jaarul ci jaww ji et cetera nit la ko indi donc tukki bi moom mu ngi ci que ça soit ci biir région yi ci biir ci biir réew ak ci biir région yi ci la bokk mhm. ku nekk xam na ne que Sénégalais yi dañoo tukki ci période tabaski bi une semaine avant dem nañu ñibbisi nañu et cetera loolu yëpp loolu moom mu ngi ci. Mhm. kon nag c'est sur que cas yi su yokkoo tamit du bett kenn. Mhm. normalement euh, ci la bokk. parce que euh, boo seetee yeneen réew pays développé yi. ak ñëpp daal niñ ko wàññee mooy bi ñu jëlee ay mesures barrières mooy maanaam masque yi ak euh, dandante bi mais surtout. confinement bi mooy nit ki kenn du génn kenn di jël transport. Mhm. loolu wàññi na mbir mi. parce que virus bi aussi su toogee dafa am cycle cycle bi su jeexee rek day. 14 mm-hmm. day kii. Mm-hmm. donc loolu la mais puisque nit ñi dañoo tukki. dañoo jaxasoo dañoo kii day walle mm. soj day walle su ñëwee ci kër rek day wàlle. c'est la même chose. Mm-hmm. ñëppay jël pratiquement c'est la même chose sous forme de grippe la pratiquement. comme grippe xëy na mooy grippe particulière mais noonu la day wàllante comme grippe. donc nit ki. naan nga naan wala nga nuyu ko wala mu tissooli sa wet wala nangam wala nga nit yor café nga ne ko mu wala et cetera ma guux ah. et cetera ah, loolu moo koy indi mm-hmm. amul dara li nga xam ne dañ ko ci inventé amul dara li nga xam ne mais yéen seen feebar bi ñett ministère mën naa ne ñoo ñoo ñoo seq li nga xam ne bon ministère yëpp ci lañ bokk mais ñett ministères yi ñoo ci gën a fës mm-hmm. santé transport ak euh, intérieur mais soo dee le les mesures ñu ni ku takk port de masque obligatoire su fekk ministère de l'intérieur deful liggéeyam normal ànd ci rigueur affaire bi day këpp ci seen kaw transport tamit su nee nit ñi neen respecté mesures barrières yi ci kaar yi su fekkee trois transport taxawuñ ci liggéey ci liggéey bañ ca war a war affaire bi ci seen kaw complémentarité la daal voilà donc yéen naka ngeen di communiquer waxtaan ba nga xam ne kenn ku ci nekk dina respecté li nga xam ne moom lañ ko xam nga am nañu lu ñu wooyee comité national de gestion des épidémies mhm. bi nga xam ne d'abord au niveau ministère au niveau présidence et cetera am nañu ay cellules mais surtout comité boobu ñëpp ci bokk mesures yi suñ koy wax ak lépp mhm, mhm. ñëpp a ci bokk mhm, ñëpp ay joxe seen xalaat ñun dañu leen di wax lan moo war a am mm. ñoom tamit dañ ciy taxaw dañ ciy ñoom ñëpp ñu ngi ci waaye xam ngeen ni ku ci joué wul rôle am ci seen kaw lay daal oui non xam nga coronavirus mooy feebar bi nga xam ne ñëpp a ko bokk mhm. pratiquement boo ci buggee génne benn ministère da ngay am problème pratiquement xëy nañ am nañu ci ëpp doole mhm. mais pratiquement ñëpp ci war a dugal seen loxo te waxuma sax ministère yi ah. mais surtout mooy feebar bi nga xam ne hôpital bi agent de santé bi ak population communauté bi moo ci bokk mhm. parce que feebar bi actuellement du feebaru yaram moo moo fi des déedéet xam nga moo fi des feebaru feebaru comportement hein mu mm-hmm. mm-hmm. eh. tudd nekkin feebaru nekkin lañ nekkee actuellement mm-hmm. pour combattre coronavirus bi c'est une épidémie bi nga xam ne ci euh, suñu nekkin bi la ñu war a soppi pour que mu jóge fii d'abord façon bi il faut ñu gëm ko il faut que ñu do ñu doxee ko il faut que ñu ñu ñu taxawee taxawaay boobu pour que feebar bi jóge fi kon nag mun naa wax ne Euh, euh, jikko yi ñoo feebar ci côté boobu. Mhm. dafa ñëw jàpp jikko yi. voilà yàlla na bàyyi jikko yi feebar googu Demba Guissé ñu ngi lay nuyu. Demba Guissé maa ngi leen di nuyu di nuyu euh, ñu ne ci plateau bi. ñu nuyu waa diaspora bi kala ɓiyo mbimi wimi e mi salminima kay wa kay ko noon <laughs> kontaan vraiment di nuyu euh, ndoy baan keps ak ñi fi nekk ñëpp aw ak euh, sama mbokk xam naa ne paa bi sama mbokk alpulaar la donc Dieynaba aussi ma lay ziar mhm. donc di nuyu vraiment ñu seetaan ñëpp waaye di wax ni thème bi am na solo trop ah parce que des fois c'est important aussi que ñu lay artiste lañu mhm. d'habitude ci kaw seen rek la ñuy gis ñu woy wàcc dem te it ñi ñuy déglu dafa bari yoon la des fois ñu invité ñu ñu bokk ci plateau yanj yu mel nii. da ci am solo. <laughs> <laughs> waaw wax na dëgg de. Uh-huh. parce que nag euh, artistes yi comme ni mu ko waxee rek ci la ñu bokk euh, nii euh, lañu lii docteur di taxawee di wax nit ñi di ko déglu ñoom itam dañoo am seen public. boo xamante ne fan mi mbas mi métti na ci lool ci ñoom lool waaye nag ñi ngi am seen i ay yenn solution yi nga xam ne ñi ngi koy am ah, mu jëm ci géer ñi bien que spectacle yeeg yëpp dañoo aj kaake yi fi mu nekk nii mm-hmm. mais kenn ku ci nekk ci artist yi gis nañu ne andi nga sa participation ci li nga xam ne moom moo di mbir mi yow lan nga ci def en tant que euh, Demba Guissé génne nga ci lu doy waar bon man euh, bi corona bi euh, amee parce que corona ku ne xam na ne Chine lañ ko dégg mm-hmm. après dégg ko léegi yu mel noonu ak yooyu Sénégal bokk na ci dëkk yi ñu ko mujj dégg. Mhm. ci dëkk fii ah. Mhm. donc man bi ñu ko déggee tàkk bi ñu ko déggee Chine ba muy bañ dégg naan ay Sénégal ah. est-ce que dina ko am wala parce que premier jour bi ñu déggee ne cas am na Sénégal dafa Sénégal doy na waar ñëpp a jommi. parce que xamuñu corona lan la te xam nañu feebar bu doy waar la. Mhm. Eh, man comme defaguñu benn solution man damaa jubal direct studio. ndax ah, boo seetloo non boo seetloo sax même bi président dañu njëkk def sorti avant moo def sorti sama vidéo la ñu njëkk moom moom moom rek moo nekkoon vidéo corona parce que man kese man maa ko nu woon donc après nag. la nekk visionnaire daal. <laughs> ok ok d' xam naa ne xam naa ne ku xool bi vidéo xam ni que donc euh, man maa njëkk a def euh, vidéo ci corona bi. Mhm. après loolu nag comme message la parce que mhm. tey ku ne xam na ni un artiste aussi bu toogee mhm. euh, di woy. wax la boo xamante ni da ko dugal ci studio defaraat defaraat xam nga ba mu neex a dégg quoi. Mm-hmm. donc loolu moo waral tey man nag. premier mm-hmm. message bi ma war a def mooy que ma duggee studio ma duggee studio nag vraiment euh, mel ni maa ngi sax artiste naan leen ah man ngeen di toppandoo yéen daal ma génnee rek ñëpp génne <laughs> mais mais quand même c'est bien comme équipe nationale comme lu mel ne comme message la rek mm-hmm. c'est important que ma defal noonu sama premier combat loolu la woon yeneen ñi nga xamante ne nag moom moo ci desa aussi moom mooy di sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay déglu mm-hmm. say fan sa say xarit sa waa kër ak say mbokk ak fépp foo xamante ne dem nga fa mm-hmm. euh, euh, yenn du ma sax mbooloo nekk fa waaye jotaay yu mel nii tey xam nga terewul nga waxtaan ci luy xamante ni mooy feebar bi donc loolu mooy suñu combat pour l'instant dëgg la ñu dem xooli vidéo bi euh, daal di ñëwaat ci plateau ok d'accord uh-huh.